fale nañ leen seen bakkan lañ ci teg feneen ak feneen ci Sénégal Matam foo làmb ci senegal rek tey seen bakkan lañ ci teg kon ku kon da ngay dem wote pour comme ab maire kese ndax nga sa bopp de weesu na loolu point de départ la pour ñu récupérer suñu réew delloo ko waa réew mi wala ñu bàyyi Macky Sall ak ñi mu àndal continuer di def li ñuy ku woteel benn maire Macky xamal ni Macky nga woteel ak ni mu yore ba ñu génnee ci élection 2019 waxoon nañ fii ci assemblée nationale xool ngeen vidéo bi ne leen sénégalais yi gi dina métti de yéenewuñ ko kenn nag waaye ci jafe-jafe la ñuy dëkk premier jour mandat wu ba dernier jour mandat Macky tey nag ñu wax leen ni tey la waalo di gën a aay waalo waalo yi gën a <laughs> waaye tey waalo a aay wala tey la Casamance di gën a aay <laughs> waalo waalo yi li tax ma wax loolu mooy àdduna bi dafa bindoo noo xam ne ci crise mondiale la ñuy nekk boo xam ne day gën di métti pétrole bi nga xam ne mooy doxal lépp ci àdduna ma ngay yokk day gën di yokk ñu ne li nga xam ne mooy tax ñu jëlee fii yóbbu fële te ñun réew réew la boo xam ne comme liggéey ñu suñu réew pour investir cycle économique ba am suñuy industrie am suñu agriculture bu ndox ba mun a am suñu autosuffisance li ëpp ci la ñuy jëfandikoo day jóge ci bitim ñu ne la prix fret maritime bi daanaka yokku na ci anam boo xam ne de xanaa mosuñu koo gis même ci jamono ay guerre mondiale ci lool la ñu nekk moo tax lu doon jàll dërëm tey boo moytuwul téeméer lay jàll. nga boole ci nag crise sanitaire bi mooy feebar bii nga xam ne kenn amul solution ñàkku nañ dem nañu lépp waaye dégg ngeen léegi ñu ne Omicron ñëw na ak na lu jaaxleeti na loolu mooy situation ci jamono jooju. ñun ñu war a xeex ci ñu jël ñu delloo réew mi ci waa réew mi te yeewi askan bi incarné ko ñu bëgg a nax nit ñi ci élection locale bi ba xeetu politique gu sante googu ñu doon def tout le mooy amuñu xalaat amuñu programme amuñu gis-gis waaye gannaaw bu ñu sàccee xaalisu réew mi ñëw di ko joxaat ak waa réew mi di leen jox ay 5 mille ak 10 mille fan leen defew fan yi nee nañu barki démb nee nañu 46 milliards la ñuy séddale Sénégalais famille yi nga xam ne amuñu doole ñu ne 588 ménages famille lañ koy jox waaw su dee famille bu nekk lu mu tuuti ci huit personnes mi ngi ci juróom-ñetti nit a ngi ci te loolu la ANSD wax loolu day doon 977 000 francs 977 francs non 9777 francs matul 10 000 9777 francs la ñuy jox kenn ku rek bu ko defee ñu ne waaw Macky Sall fekk na nga askan wi nangam nangam mu mel ni rek ab xar boo jël ngeen baal ma ci misaal bi teg ko ci néeg ba mu xiif bay waaj a dee ngeen ci benn xottu banaana sotti sànni ko bu ko defee mu kontaan ne ak ah waaj de ku baax la jox na moom moo dugal askan wi ci guute gi mu nekk du 9000 francs wala 10 000 francs mooy xettali askan wi nga dellu si waat ñu ne. retraité yi ñoom Habib Sy ñoom Khalifa Sall man sax man naa laaj sa borom kon dañ faa laaj ba ñun ànd si ànd si parce que cotisé woon naa 15 ans. non ko. waaw ñu ne ñu ne retraité yi léegi yokkal nañ leen 10 pour cent ci seen pension lépp ci élection bi de dama bëgg Sénégalais yi dëkk parce que yooyu dafa yàgg am boo duggee ci àll bi fépp ñi ngi xool ñi ngi xool yu tali yi naan la xol yi foo romb poussière kese la te doo gis goudron andi ay poto lampe tëral ne gars yi ñu ngi waaj a andi électrification yooyu nga xam ne moom lañu yàgg def pour nax askan bi dañu bëgg askan bi yeewu ci yooyu te bañ ñetteel bi ñaari fan yu ne ñu ne ubbi nañu benn point nanoprix ci at ci dëkk bi pour jox daw ñi ak jigéen ñi liggéey waaw emploi yi nga xam ne Macky Sall diggoon na ko askan bi keroog bi ñu ko doo du may du may métti mois de mars ba pare dafa dajale ndaw ñëpp fële jam ñaajo daal dañu promettre des milliers d'emplois à part huit mille cinq cent enseignants yi mu jël ci anam am nañ anam yoo xam ne anam yu doy waar la naa ci yenn enseignants yi wax nañ ko dàmbooj wax nañ ci keneen ak keneen yi mu jël jàpp ni ñooñu mën nañoo fexe ba askan bi bis bu jógee ne doyal na ñooñu mën leen continuer lépp ci nax boppam rek ana emploi yi mu créé xaar ba élection jot nga naan ay point nano crédit ubbi nañ bu Ziguinchor ubbi nañ bu Matam te maa ngi wax ndaw ñi la temps yëpp ñu ngi leen di ñëw ne leen andi pour ñu financer leen defoon nañ ko 2019 woo leen ñu ne boobu doon nano crédit leer na woon ñu woo leen ngeen ñëw ñu ne dañ jox nañ dañ leen jox moitié beneen moitié bi su Macky Sall gagné bi mu gagné ba léegi yéen a ngi souffrir benn ndaw amu fi liggéey jigéen ñaa ngi sonn ba fu sonn yem nga la waaye askan wi dimbale leen ñu ñu dimbale leen parce que ñun mënuñu dara suñu jàppale ngeen ci loolu démb conseil ñu dégg ñu ne huit milliards la ñuy jox daara yi waaw léegi nag tal nañu daara ñi gëstu daara nee nañu huit milliards la ñuy séddale daara yi waaye nag ren xam naa ko amul kenn ku gën a yeewu sëriñu daara ci Sénégal ñooñu moom wóolu naa leen mun nga nax ñëpp ba mu def sëriñ daara ñu yeewu lañu te yàgg nañoo defal seen bopp gisuñu kenn ku leen jàppale moo tax ku yaakaar mun nga leen nax ñu mel nii yow sa bopp benn kon ci fan yi ñi jot ñi jëm di leen gis ñi randal alalu réew yépp ndax xamante nañu ñu nag ñoom ñi fi ëpp li ñu randal ci alalu réew mi ay fonctionnaires yoo xam ne tey ay milliardaires la di ngeen gis ñuy wër nag fu nañu dem fa nen ñooy jàppale tel candidat yor xaalis bi dul jeex di ko séddale dama bëgg a Sénégalais yi su dee su ngeen mënul faju bu baax tey su ngeen mënul lekk lu baax su ngeen mënul seen doom su mënul jàng bu baax su ngeen mënul am tali yu baax su dee courant bi ñëwul ndox bi ñëwul xaalis boobu ñu randal te mu waroon tabax hôpitaux yeeg école yeeg yooyu moom la ñuy dellu si waat ci as tuut di leen essayé ndax pour ngeen woteel la gan la waaye pour une fois mois de mars sénégalais yi wane nañ ni nous sommes un très loolu nag lañu war a yeggali féddali ko dans les œuvres ko ci wot bi foofu lañ ci toll beneen point bi may daane ne rek wala beneen euh, ñetteelu point bi mooy ñu ko dencee waxee am na plainte boo xam ne euh, Samba boobu ñu tuddee Djibril Ngom nga xam ne li mu def yoon da cee teg ay daan ba saax bi ñu jokkee avocat bi nee suba la war a jot arrêt cour d'appel bi pour mën koo def citation directe pour que ci fan yu gaaw ñu woo ko fële ci tribunal Matam àtte ko loolu mooy li ñu seet ak moom waaye ki nga xam ne nag mooy xalifam moo ko yónni loolu ba pare woo ko ci pare bi ci anam bu ñëpp gis ba ñëpp gis loo xam ne ñëpp njort nañ ni koppara ci ne loolu lu garaaw la ci réew mi kooku dafa xotti charte réew mi dafa xotti ormo cër bi ñu ko jox ci réew mi muy président de la république ba pare dafa dafa dafa neenal bi nga xam ne mooy suñu institution li nga xam ne mooy président président de la république moo tax ñu ne ñun Yewwi Askan Wi mënuñu koo pétition ñu ñaan Sénégalais dañu signé pétition boobu pétition boobu li tax ñu koy lancer mooy pour que ñu saisir assemblée nationale. d'une demande de mise en accusation parce que xam ngeen ni président de la république dañ koo jox arme boo xam ne nee nañ ko yow bokkoo kenn parce que lañ la sas bi mu toll moo tax bokkoo kenn ba tax doo bokk ak nit ñi fooy jaar wala sooy bokk ak nit ñi fooy jaar dañuy arrêté ñëpp yow ko jàll doo bokk ak nit ñi ñoo tukkee ba dañ lay utal sax avion booy dugg yow dong leneen ak leneen ñu jox ko ko sa njaboot sax dañ leen di jox sécurité yow xamoo lu ceeb jar xamoo lu diwlin di jar xam nga lu courant di lépp dañ la koy fayal waaye nag dafa am lu mu àndal bi loolu ci loolu nag lañ ko ne boo ak sax mënuñu la atte ci yi comme ni ñuy attee Malick Gakou wala Ousmane Sonko wala keneen dafa am yoon boo xam ne yoon bu spécial la bu ñu lay atte lu ñuy tuddee haute cour de justice ñaar bi mooy mënuñu la àtte lu dul da ngaa def haute trahison haute wor wor bu rëy a rëy haute trahison nag yoon tekkiwul définir ko waxul lan la lu demul na cee dugg mais soo demee Tchad dañ la naan bu président violé serment mooy bi muy bi koy fal dafa dafa taxaw waat ne man waat naa ni charte réew mi muy constitution muy loi yi dinaa ko sàmm sàmmanteeg moom. donc su dee sàmmoon joola charte yooyu boo demee fu mel ni Tchad dañ ne loolu haute trahison te loolu moo fi am kon ñu ne dinañ ñaan sénégalais ñu signé charte boobu gannaaw buñ ko signé nag pétition bi du moins buñ ko signé ba dajale ko dinañ ko def en ligne waaye dinañu am suñuy ndaw yuy wër yor ko dem fépp ci gare routière yi si marché yi fu ne ñu signé ko buñ ko signé ba noppi liñ ci biir assemblée nationale ne leen Macky Sall dafa war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 suñu mbokk pur yii gannaaw li amoon Tambacounda yi ñëpp ngeen gis ko te loolu sorewul wala wutewul ak ni xew ci kaaw baax li mu jaar fii kenn du fi nangu ay nit song la yor ay gànnaay nga jox leen seen bopp sa bopp ñu rey leen ñu rey la nga dem toog yow rek kay jàkk sa njaboot boo dépendre sa bopp rek bu doon li li li li gaañu wala li faatu si yow la jóge ñu suul dossier ñun assassiné nañ ci ñi militant ba léegi kenn wax ci waaye bu dee si ñeneen nga jóge ñu jàpp la ne dañuy tëj tey ñu ngi jàpp nit euh, militant pur tëj ko 15 ans bi mu leen day def appel ñu ne dañu corsé dossier bi daal di demandé mooy menace yooyu ñuy def ci nit ñi boo defee appel ñu corsé dossier bi yooyu bokk na ci injustice am ci réew mi te il faut ñu dénoncer il faut ñu wax ko te yeewi askan bi dootu ko nangu yeewi askan bi dootul nangu leader de l'opposition war a nekk nag fu mu nekk ci dëkk bi

xam ngeen ñi fi nekk yëpp média privé ngeen waaye ñu ngeen nekk nekk nekk média privé charte bi leen engagé bi leen jox yéen habilitation pour ngeen mën a exercer dafa ne nii ak nii ak nii ngeen war a defee bokk na ci da ngeen war a tolloole Sénégalais yëpp informé juste et vrai moo tax ngeen nekk fii donte am na ñoo xam ne ci yéen ñi moom seeni organe de presse peut-être nguur gi la gën a jege. peut-être que opposition la ñu gën a jege waaye ñi ngi fii tey parce que information la waaye RTS anamu fi neew fi te li RTS di di di di di am jóge ci ñun moo ëpp foofu parce que am ngeen subvention peut-être mais lu tuuti ci des yeneen débris mais RTS 100 pour cent de son budget suñu impôt ba pare mu lànk ne du couvrir activité opposition te mën a xëy suba ba guddi am Macky Sall andi Macky lool ngeen fa ne yoon te charte réew mi ne ko da war a moom lañ ko gën a imposer que média privé yi sax la la pluralité dans l' accès aux médias loolu principe la de droit du ngeen gis Ousmane Sonko wala Malick Gakou wala Khalifa Sall à lu dul ñu ne campagne électorale jot na loolu est yoon la kon loolu il mu jeex. il faut que ñu ubbi RTS am na émission publique plurielle defe naa boobu yoon la chaque quinze jours ñu invité ci opposition comme ni ñu fi invité ko pouvoir ñaareel bi mooy CNRA nga xam ne ñoom it dañoo féete ñëpp xam nañu balaa ñu mën a dénoncer rek mu concerner opposition la waaye CNRA nee nañu ñi nga xam ne journaliste lañu te engagé politiquement. ba ñenn ñi sax nekk ci amatuñu sañ-sañu dem taxaw ci seen i organe de presse wax ak Sénégal waaw RTS ku ko jiite moom lan la du candidat la candidat la ku nekk maire ba pare war a jiite RTS est-ce que kooku mun nañu tolloo la ñun ñëpp kon kooku dafa dañ ko war a démi démissionné dañ ko ko war a teggi foofu mu nekk noonu teg fa quelqu'un de neutre comme niñ ko réclamé ci euh, euh, Sénat nga xam ne ñi fa nekk ñoo fa nekk 2012 ba léegi te mosuñoo organiser élection correctement retraité nañu d' abord en tant que fonctionnaire waaye seen mandat jeex na depuis mai 2011 ngeen foog ne ñooñu dinañu def lu naqari Macky Sall kon loolu mooy poñ bu mujj bi fi woon wax ñu leen gërëm leen sax di jégalu nag ci. deux secondes y a un euh, lépp ma ne maa doon vouloir. dañu am ci léegi benn xabaar seen collègue mu wax Fatimata Touré nga xam ne dafa nekkoon fii ci biir point de presse bi ñu wax ko ne borom këram dafa génn àdduna. ñu ngi koy jaal famille am ñu ngi ko jaal groupe GFM di leen ko jaal yéen ñi nga xam ne yéen a bokk nit ñi di ko jaal kii lay nekk yëpp. man la